dundu doomu adama dafa gàtt rawatina nag xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw dundam dafa gàtt lool ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ne képp koo xam ne ci ci xeetu sayidina muhammad nga bokk la suñ boxee bu la suñ borom joxee lu tolloog juróom-benn fukki at rek xamal ne wàccoo na ak yow kon mu mel ni dund gi nga xam ne moom la dund si xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund dafa gàtt lool buñ ko comparé xeet yi nga xam ne moom ñoo jiitu woon xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu waxee rek ne ku mel nii ku mel ni Seydina Noox mi nga xam ne moom lañ yónni woon te ba mu tàmbalee yónnent ba woot sax na ca ñam doon woo lu bat junni at yoo xam ne juróom fukki at moom moom la manqué kon mu mel ni ñooñu dund gi nga xam ne moom lañ doon dund bari na bari waan boo boo xam ne wuute na ak gi nga xam ne moom la xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund muy dund gu gàtt lool loolu nag tax na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon ñeewantu lool ci xeetam bi bëggal leen loon aw yiw ba tax bañ ko nettalee la nga xam ne moo xewoon ci ki nga xam ne dafa am juróom juróom ñetti fukki at yoo xam ne lépp da ko daa xaree ka woor mu loola mu yéene woon ko xeetam ba tax yonent ba tax suñ borom ci baaxam defal ko ay defal ko lay weeru koor defal ko ci laylatul xadar mu mel ni kon tax na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetam wi xew yéew xéewal gu yaatu ba tax na suñ borom itam jox na ko ay bés jox na mel na ni defal nañu ay promotion yoo xam ne yu rëy la ci ci kaw suñu dund promotion yooyu nag bokk na ci fukki fan yi nga xam ne moom lañu nekk muy fukki fan yi nga xam ne mooy fukkeen fukki fan yu jiitu yi tàmbali ci weeru tabaski bi ba keroog bisu tabaski ba yooyu fukki fan yooyu dafa rëy lool ci suñ borom ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa dañu nettali ne suñ borom day kenn mënu koo defal jëf ju baax jum yoo xam ne dana ko bëggee comme ni mu koy bëggee ci fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi tabaski loola nag ba mu ko waxee saxaaba yi daaj koy laaj ne ko waaw ndax jëf ju baax jooje nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu defal ko ko te gën koo bëggee ci fukki fan yu fukki fan yu yi nga xam ne ñoo fukki fan yu tabaski bu fekkoon ne nag kooka dafa jógoon keneen dafa jógoon dem xare ji ngir yàlla joxe boppam ndax jëfam jooje suñu borom dana tolloog la nga xam ne moom la keneen ki di def de jullit bii def ci fukki fan ak fukki fan fukki fan yi tabaski yi ndax dana loolu mu ne ko loolu day doon tey dafa jóge woon joxe boppam ngir jihaat ci yàlla itam du tollook loo xam jëf ju baax joo xam ne yaa ngi koy def ci fukki fan yi tabaski yi loola nag mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam na xam le ne bam bam ne ba bañ nee ko bam bañ ne ko ndax jihaad koo jihaad ci yoonu yàlla jëf jëmuy def dana neexe suñ borom comme jëf ju baax joo xam ne yaa ngi koy def ci fukki fan yi tabaski yi mu ne leen déedéet lu dul koo xam ne nag dafa jóg jihaad yi yóbbu alalam yóbbu ba kanam te dara dellusiwaatu ci kooku rek mooy ki nga xam ne mën nañoo wax ne jëf na jëf ju rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat di wax ne amul yenn bis yoo xam ne dana màgge na te yàlla bëggee ci ku ko jaamu comme ni nga xam ne ni la ni la ko bëggee ci fukki fan yi fukki fan yi tabaski kon nag am na lu ma leen di digal ngeen bareel ko ca mooy na ngeen di bareel di wax laa ilaha illa allah di bareel di wax itam allahu akbar di wax di bareel di wax itam walilahi alhamdu am ahadis boo xam ne Seydina Abbas moo nu ko nettali wax ne Ibnu Abbas moo nu ko nettali ci ci yonent ci waxi suñ boroom ji nga xam ne moom lay wax ne wa yadkurullaha fi ayamin maalumatin mu ne bis yi nga xam ne moom la suñ borom wax ne nañ ko ciy fàttaliku ci bis yoo xam ne bis yu ñu xam la nee na bis yooyee lam ca jublu mooy fukki fan yi tabaski yi kon ñu jëlewaat beneen ci ci hadis boo xam ne mi ngi jóge ci ibnu ibnu abi hurayrata mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne amul yenn bis yoo xam ne yàlla bëgg na ku ko ca jaamu defal ko ca lu baax comme ni mu ko bëggee ci fukki fan yi nga xam ne ñu fukki fan yi tabaski ndax nee na kat boo ci wooree benn fan dafay mel ni da ngaa woor am at ba mu mat sëkk boo ci taxawee génn guddi naafila dafay mel ni da ngaa taxawee laylatul xadar te xam nañ ne laylatul xadar suñ borom da lëm kon mu mel ni fii moom fan yi leer na ndax fukki fan yu njëkk yi la mu mel ni kon dafa mel ni dafa wax ne nag ne fukki fan yi boo ci taxawee boo ci taxawee di naafila ngir suñ borom dafay mel ni yaa ngi taxawee laylatul xadar bokk na itam ci li nga xam ne bëgg nañ ko ci bisu bisu ci fukki fan yii ñu ciy faral di wax allahu akbar maanaam ñu far ñu far di ci ñu faral di ci ba ba di ci di ci kàbbar loola nag suñ borom moo na ko wax ci aay yu bëree bëri bokk na ci aay yi nga xam ne fi la ko waxee mooy waskurullah fi ay ayamin maadudat ak xawul ak beneen aaya boo xam ne wax na ca suñ borom wax na ci ne kasaalika saxarnaha lakum li tukabbirullaha ala ma hadakum loolu nag ñu bari ci borom ñu bari ci borom xam-xam yi ni ko fire li tukabbirullaha ala ma hadakum dañoo wax ne lim ci jublu mooy fukki fan yi tabaski yi kon mu mel ni takbir yooyu nga xam ne nag moom la suñ borom bëgg ñu def ko ci fan yi tabaski yi muy fan yi nga xam ne moom la ñuy tuddee ayaamu tasrix nee na bu ñu ko bëggee wan waxtu lañ koy tàmbali di wax allahu akbar yi nee ñu ngi koy waxee ci bu ñu xasi xasee xëy ci bisub bis bi nga xam ne mooy bisub tabaski bi bisu bukki fukkeelu fan baak benn fukkee fa fukkeelu fan baak ñaar fukkeelu fan baak ñett muy ñooy yi nga xam ne moom lay tuddee iyaamu tasriix bis yooyu lañu bëgg koo xam ne danañ ci danga ci faral di wax allahu akbar mu mel ni nag wax allahu akbar joojee danañ gis na ñu bari dañ koy def ci ginnaaw jullik farata gu nekk dañuy toog def ko waaye nag wax ndoolee day doonul loo xam ne danañ wax ne moom mooy lekk li war a nekk waaye dañ koo soxtu dañ koo sopp nga di ko def kabbar yooyu ci waxtu mu war a doon nan lañ koy defee nag mooy am na loo xam ne Salmaan moo nu ko nettili ci wax nan lañ koy defee am loo xam ne ibnu Omar maanaam Omar ibnu Ab Omar Omar ibnu Xataab ak nu Mas'ud ñoo nu ko nettali bi nga xam ne moom lañu Salmaan nettili dafa wax ne dañuy war a wax ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira mu mel da ngay wax allahu akbar ñetti yoon tëjee ko nag kabira bu dee Omar nag bi nga xam ne da daa def bu bisu tëbës bu fukki fan fukki fan yi nga xam maanaam ci ayam taswix yi li ci daa def moo ma soo da daa génn dem ca marché ba bu ñu génnee ci marché bi nag am na takbir yoo xam ne moom lañ daa def ngir bëgg nit ñi dégg ko ñoom di ko def loola nag mooy allahu akbar allahu akbar ñaari yoon wax laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu mu mel ni kon yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne nañ koy bari ci bisu bisu yi nga xam ne moom la ñu tuddi bisu tabaski yi mooy bis yi nga xam ne moom lañuy tuddee ayaamu tasrix ci wax ne nañ ci bari di wax tahlil ak takbir ak tahmid mel na ni lii nga xam ne moom la Omar génne ak Ibnu Abbas bi moom matalee na loolu ndax wax na allahu akbar allahu akbar ñaari yoon tekki laa ilaha illallah mu mel ni allahu akbar ñëw na tahlil ñëw na wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu mu mel ni itam tahmid ñëw na kon mu mel ni li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ju di ko def ci fan yi tënkal nañ ñu ko ci wax ju mel nii muy allahu akbar allahu akbar ñaari yoon laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu mu mel ni nag loolu doonu du ne daa dafa doon loo xam ne rek comme ni ñu ko waxee da ngay dañ koy defandoo ci ginnaaw julli yi farata yi loolu baax na sax waaye nag kenn ku ne waxtu wu ne mën nga koo defal sa bopp waxtu wu ne foo nekk itam mën nga faa defee mu mel ni kon ñëpp ci yam kon ñi ngi ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ndimbal te bor te ba tax mu defal nu xéewal gu toll nii ci fan yii nga xam ne moom la ñu nekk ak fan yi tabaski yi fa mu defal nu ci xéewal gu rëy toll nii te loolu lépp xee yërmande joo xam ne am na ko ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yërmande joojee mi ngi jóge ci yërmande si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeetam bi ndax bi nga xamee ne suñ boroom wax na ci alquran di xamle ne isaa bu bu ëllëgee suñ borom dana ko taxawal wax ko ne ko ndax yaa waxoon ñi nga xam ne ñoon ñoo la topp ne leen na ngeen ma jaamu jàppe ma yàlla mu ne leen mu ne suñ borom man dey waxuma ko ndax li li ma li ma nekk woon xam nga ko bi ma fi jógee itam li ma nekk xam nga ko kon ñii nga xam ne ñoo doon wax ne maa leen wax lii te loolu te loola doonul lu ma leen wax say jàmm lañ bu la neexee nga mbugal leen bu la neexee nga jéggal leen bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee nag moom dafa dafa daal di jooy wax ne daa di daa di daa di wax ne samaw xeet samaw xeet ndax lii nga xam ne moom la Seydina Isa wax ci ne ñii say jaam lañ bu la neexee nga mbugal leen bu la neexee nga jéggal leen moom njéggal la bëggal aw xeetam yërmande la bëggal aw xeetam moo tax mu jooy ba mu jooyee na suñ borom xamal ko ne ko du ma la def mukk lu la naqari ci saw xeet kon mu mel ni xéewal yi nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu borom defal da koo def rek ngir yërmande ji nga xam ne moom lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci xeetam bi te yërmande joojee mi ngi jóge ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom yónnee wa xamal ko ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni wu ma lu dul nga nekk yërmande yërmande jooje nag moom dawal na ko ci aw xeetam dawalin wu leer nañ bu feeñ bu feeñ bu baax a baax kon ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom yërmande te mooy borom njëggal te mooy borom kàttan yërmande joojee nga xam ne moom la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon ci xeetam wi yàlla nañ ko suñ borom defal te defal na ko lu kawe suñu jot loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko ñi ngi ñaan suñu borom ba tey ji moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man Cheikh tax Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh seex Ahmadou Bamba te yor ay yéene yu rëy yor ay bëgg-bëgg yu rëy te lépp jëmalewu ko lu dul ci liggéeyal yonent ak liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci ci ci yoon wi loolu suñ boroom dimbale ko jox ko kattan jox ko ak dund ak wér ban ni nga xam ne ni la ko yéenee mu defe ko te defe ko nu kaween jortam te bañ cee daje bañ benn pakk ak benn ndog te ñu ànd kook moom te daje cee ngërëm li nga xam ne moom la ciy sàkk moom itam muy ngërëmul sëñ Tuubaa ak ngërëmul suñu borom yàlla ko suñu borom defal yàlla suñu borom yërëm yàlla suñu borom taxaw rawatina nag fan yu tedd yi nga xam ne moom lañ nekk nga xam ne nañ nañ ciy baril ay njégglu nañ ciy bor nañ ciy baril tudd yàlla nañ ciy baril sàbbaal suñu borom mel ni li nga xam ne mooy li ñuy tuddee baaxiyaatu saalihaat boo ko defee day mel ni li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne nañ bëgg dafa bëgg ñu di ko bare ñu di ko bareel ci fan yi day mel ni def nga ko ndax boo nee subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar yokk nga ci sax subhaanallah joo xam ne ñëwut ci li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu wax ne nañ koy bari ci fan yooyu suñ borom nag mi nga xam ne mooy borom kattan yàlla nañu dimbali ba lii nga xam ne moo ubalee adduna si te jaaxal ñëpp te moom képp moo ci man dara ndax ñun munuñ ci dara ndax la ngay xeex dangay xam fa mu nekk war a nga mën koo teg bët loo fi tegul bët nag xamoo fu mu nekk boo ko dee xeexit ay pexe da ngay jéem rek kon mënoo ci dara da ngay jéem kon comme da ngay jéem nag suñu borom mi nga xam ne moo man te moom du jéemantu ndax moom sax du jéem daa man kon suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom yërmande borom te te lépp lo te moo gën a yërëm doo jaamam ñi ci ci seen i wayjur ci seen ndey ni ni ni ni ni wayjur ni wayjuru jigéen di yërëme doomam suñu borom moo gën a yërëm ab jaamam ci wayjuru jigéen kon nag moom moom mi nga xam ne mooy borom yërmande te yërëm nu yërëm yërëmane ju toll noonu yàlla nañu dimbali ba lii nga xam ne moo lakkal doomu aadama yi te mënuñ ci dara lu dul dañuy jéem rek ndax xamuñ fu mu nekk mënuñ koo teg bët doo mënut a bët bu noo fu mu nekk rek xeex ko yaakaar naa rek ay jéem rek la waaye doonut ay pexe yu wér yoo xam ne da ngay wax ne fii laa jaar kon nag moom mi nga xam ne moom moo ko moo ko fi mën a jëlee yàlla nañu ko fi jëleel te dindi ko ba mu seet rawatina ci bis yi nga xam ne moom lañ nekk te mu bëgg koo xam ne da ko ci jaamu te xam nañ ne jaam ak ñaan mu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy jaam ñaan suñu borom bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy kon nag ñi ngi koy ñaan moom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy boromu man mu dimbali nu ba lii nga xam ne moo ubalee àdduna mu jëlee ko fi ci jëlin woo xam ne dafay jeex tàkk jëlee ko ci àdduna sépp loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana la tuzig qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana innana samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faxfir lana dunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana maa al abrar rabbana wa atina maa waadtana ala rusulik